jërë jëf mbokk nga xam ne moo di ci wa inna ilayhi raji'un naqar boo xam ne jot nañ ko ni ki léegi ni kii nga xam ne moo di Aziz Dabala doon artiste bi nga xam ne fecckat tamit mën na artiste yi nga xam ne mën naa ne doon feccal ñu fekk ko fi nga xam ne moo di ci doon Technopole ci biir appartement am jot ko faat dañ leen di kenn koo xam ne rek mën naa ne jot naa fekkee ni mel wala tey ji koo xam ne déjà mi ngi woon comme témoin mooy mu relater ñu euh, li nga xam ne jot na ko faa gis soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax a baax. su rek nga expliquer ñu euh, lan moo xew exactement fi nga xam ne moo di ci doonu technopole. waaw ñu naan ci yàlla la ñuy dellu ci yàlla la ñuy xaw ma nu ko nit ñi kii di waxee man damaa jaaxle. waaw as dabala daal niñ ko gisee daal moom doy na waar ndaxte ñëw nañ ma euh, dugg bii këram fekk ko ñu ray ko dëpp ko. dañ ko rey dëpp ko. biñ ko rayee dëpp ko doo ki nga xamante ne doo xam nga koo gis ku nekk dina am koo xam ne danga dalay dàq koo xam ne da koo dàqoon wax waxali la tuddoon léegi kooku tam ñu rey ko ba pare jam ko ci biir ba buti di génn waaw noonu daal lañ noonu la ko noonu lañ fekkee. ban heure nga jot euh, li nga xam ne moo di information. Hmm, ma xool ay 11 yooyu rek laa ci laa ko jot. waaw bi ma ko jotee nag ma daal di ñëw di xool vérifier ba xam dëgg la ci laa ñëwee fekk fii sapor yeeg yëpp ba biñ koy jël yëpp maa ngi taxaw. Mm-hmm. nekk na lu métti yéen euh, tey jii yéen ñi nga xam ne jege ngeen ki nga xam ne moo di mm-hmm. Aziz Dabala amul kenn koo xam ne xaman ne mu jote woon ak moom ndax tey jii ñu fekk nit euh, ci biir appartement am euh, faat ko nekk na lu doy waar mm-hmm. Aziz Dabala di tawit ak kenn amut ak kenn affaire jàmburu yàlla la Aziz Dabala soo yi sax nit ñi di def nii sax di tooñaate sax bokku ci Aziz Dabala tooñul kenn ci jàmburam la nekk di liggéey liggéeyam na gëm boppam rey nañ jàmbaar rey nañ góor yàlla ray nañ ki nga xamante ni fecc bu bu bis saa yu feccee nga xam ne góor yàlla dëgg moo fecc yaa ngi dégg ba pare nag ñu fekk mu nekk ndaw lool ba demboo démboo njaay rek bi ñu reyee xale bi ginaaw raay ku nekk yaa ngi ko gis ñu muy def ci interview yi ba naan nañu police yi jàppale bu baax a baax a baax parce que ginnaaw raay li fi yi di am bari na yaa ngi dégg ba pare kooku tamit euh, euh, xale bi ñu rayoon ki ko rey yàgg na koo def affaire yooyu yaa ngi degg mu koy saytu di ko wax ci kii bi ci inter interview bi yaa ngi dégg mu koy wax moom ku ne ko woon duñ ci teg juróom benn fan mën naane ne ñu jël sa bakkan du ko du du ko gëm. dafa am ko loolu. moom moo defoon interview dafa am benn xale bu ñu rayoon. Ah. fan yi mat euh, mën na une semaine nag biñ ko rayee moom mu def ci interview da ci wax yaa ngi dégg. léegi nag moom buñ ku ne ko woon kooku ñu ray tey yow doo euh, rawanteeg moom semaine est-ce que kooku est-ce moom dina ko gëm moo tax dëkk bi nag jën jën pour ñu gën ñëw aar ak lu ñu mën a aaree xeeb nañu ndaxte teg na pôle gii. dañ ni dañ lay rey te dara du si mujj ray ay ray rey rafa am sàcc rey buñ nangu bëggee jël sa alal mënuñoo jël sa alal dañ lay rey imagine kër goo xamante am na caméra surveillance am na yëpp ah ñu jël la rey la deuxième étage xam nga kon loolu doy na waar lool sax yaa ki nga nekkaloon ñu rey la ba pare yëpp say téléphone teg ci tamit ay téléphone am yëpp gisuñu ko waa yëpp yóbbu nañ ko loolu tamit rafetul parce que Aziz Dabala mérité wul lii mais nag yàlla moom lii jiit nu jutoom yàlla na xëppee ji àjjana parce que as dabala nit koo xamante ne man de man maam waalo man li tax ma fonk ko ndey gay moo tax ma fonk ko li tax sama xol tooy ndey gay parce que man ndey xale yi fecc fecckat yëpp ndey gay moo tax ma xam leen ñu bëgg ma respecté ma teg ma place ñoom ñëpp yaay lañ may woowee ñoom ñëpp yaay amul kenn ku ma si sàllalu kon maa ngi koy jaay la ndey gay mi nga xamante ne moom mooy seen xalifa ñoom ñëpp di ko jaale euh, di ko jaare ñëpp daal parce que lii tiis wi tey ñëpp a ko bokk. ñëpp a ko bokk ngeen di sàkku euh, tey jii euh, pour li mu mën a dakkal li ni mel. lii la ko yoon lijjanti parce que lii dafa doy waar lii dafa luus lii na ko na ko yoon lijjanti parce que yoon ci boppam na ñëw lijjanti ko fekk nañ fi tamit wax dëgg yàlla commissaire Pikine bi tamit kenn amul fayam mm-hmm. ñoom Diop ñoom Amet yaa ngi dégg ñoom ñëpp ngi fi macha allah kenn manqué wul ñoom ñëpp fekk nañ leen fa wax dëgg yàlla def nañ seen liggéey ba mu mat taxaw nañu uh, woo sappoor ñu yóbbu ko ba pare ñu doog a dem enquête def nañ seen enquête ak seen yëpp nag mais na ci yoon teg loxoom na ci yoon teg loxoom parce que lii dafa ëpp nit ñi yaruñu yaruñu ay ginaar sax soo koy rey war nga koo teg si yoon asatumaak ndaw boo xamante ne dafa nekk xale bu tuuti nekk ci buntu àddinaam di daw rek di yóbbul yaayam di daw di yóbbul yaayam ñu def ko nii tamit neexul waaw lu si nit man a dimbali si yoon nañu yoon dimbali ñu jénne ñu rey Aziz Dabala ak ki tudd Waly nga xamante doomam la da koo takkoon jërëjëf waa Feeling Dakar mooy su ma mooy ñaari nit euh, lañu la ñu rey fekk ci appartement bi rey leen ñaari nit lañ rey lañ fekk ci appartement bi rey leen mhm. ñaari nit ci kër goo xamante parce que euh, troisième étage xaw ma quatrième étage mhm. ah, kër gi am na caméra surveillance que kër gi moom am na sécurité mhm. xaw ma nag nii lan la demee nii parce que nag loo xamante ne yoon moo ci teg loxo kenn xamagu nu mu demee mais kër gi moom am na sécurité xaw ma nu mu demee nii nag yàlla rek moo xam yàlla moo xam te yal na yàlla leeral ci barke El Hadj Fallou ci barke Seydina Mouhamed ci barke weeru safar wi ñu nekk waaw jërëjëf. ñu ngi mastaw képp koo xam ne rek moo di mbokkam mën nañ képp ko doon wax moo di Mame Wallo moom jot na ci fekkee eh, li nga xam ne mën naa ne moo waral eh, mbëbët bii nga xam ne dal na ki nga xam ne moo di Aziz Dabala encore une fois dañu naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun métti na lool sax métti na lool métti na lool dinañ leen toppal lépp li nga xam ne mën naa ne mi ngi xew euh, fii nga xam ne moo di Thiodaane Technopole lépp loo xam ne rek war nañ ko fa génnee incha allah rabi danañ ko matal bu baax a baax baax di leen jaajëfal bu baax jërë ngeen jëf